Koulibaly ndeysaan ak bëgg Sénégal génn ba ay kàddu yu am solo ci amuroom ci Sénégal waaye ñëw ci kan Kylian Mbappé ndeysaan dañ ko tegaat ci banc bi PSG defaat na nul nee naa leen ñun Marseille dinañ leen dab ba jël Ligue 1 bi ngeen wedduñu ñu ngi ciy ñëw <laughs> salaam gars yi bëgg naa leen nuyu ku ci nekk seen tur ak seen sant Olympique de Marseille kase ci xol Iliman Ndiaye Ismaïla Sarr ñoom rek laay topp nee naa leen sama club Marseille mooy meilleur club dafay jël loolee di Ligue 1 bi bu foofu dem jël Europa League bi déwén mu ñoo laal Ligue des champions PSG nul Kylian Mbappé encore une fois ci banc bi à la soixante-treizième minute la dugg ba kookee ñu naan ko jaka jak jakite bu Reims dugale bi bi l'Ivoirien égalisation bi gis ngeen action bi mu def geste bi mu def nga xam ne ni kii ndeysaan peut-être euh, euh, kookee di Enrique ci logique am la ne maanaam dafa bëgg tàmm dem di jouer ba cent sans Mbappé quoi bëgg na ëllëg bu Mbappé dem xam nga yëg na ne Mbappé day dem mu teel a préparer équipe bi sans Mbappé xool nan la koy gérer ëllëg mais gis nañ ne sans Mbappé affaire bi dina xaw a difficile mais avec le temps bëgg naa ni mu am dara quoi ma leen xaar ci commentaire nañ ngeen ko gisee Ousseynou Gendarme muñ leen rek Ligue 1 bi ñun ñoo ko moom waa Olympique de Marseille <laughs> bu loolu weesoo kookee di Kalidou Koulibaly waaye PSG ak Reims deux buts partout le match boobee mujjee Ligue 1 française Koulibaly nag nee na kenn mënu koo jëlee maanaam mbëgte bi muy am pour représenter Sénégal mbindeef ci àdduna mënu koo jëlee ci moom waaw. dafay sawar bëgg am ñëw di euh, servir réew bi di Sénégal ci ay compétition di joxe lépp lu mu am choix bi nga xam ne def na ko Sénégal du ko regretter du ko mës a regretter lu mu bëgg la choix de cœur la te amour bi muy am pour ñëw di représenter représenter Sénégal muy club ak ku mënti doon kenn mënu ko cee jële mu doon kàddu yoo xam ne kàddu yu am solo la yoo xam ne ñun sénégalais en tant que sénégalais bu ñu ko déggee suñu xol dafay seet dañuy fier dañuy xam ne ni kii ñu représenté nii il est digne fils de de de du Sénégal koo xam ne nii dafay taxaw réew bu baax a baax yàlla jàmmam yàgg jàmm ci yéen gars yi ba beneen yoon ci yeneen vidéo merci à vous jaajëf. aussi Ele manda para J'ai trouvé ça dans le sac. Eh, aujourd'hui, aujourd'hui aussi, c'est. Jaïda. Hey, les mondes parents. Eh. Aujourd'hui, aujourd'hui aussi, c'est un autre. J'ai trouvé ça. Jaïda. Hey, les mondes parents. J'ai trouvé ça dans le sac. Eh, aujourd'hui, aujourd'hui aussi, c'est... Gol! on, good. Good. Oh, hit that one. ما تتكلمش ما تتكلمش اوعى تتكلم معاه بكلمه نشيطك والله بتاعتي يعني اول اللي جابك على التليفون يا الله كمله كمله لا كويس كويس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 ريح شويه طبعا راح اقعد ريح شويه طيب اقعد ريح شويه انت رايح فين؟ كنت عايز عمليه كنت منين يا عم محمد؟ اعملوا اعملوا له عمليه اسمع اسمع ما تتكلمش ما تتكلمش اوعى تتكلم معاه كلمه